daal leen ak jàmm ci li gën fës ci xeeti yéenekaay yi dañ koy tàmbaleek ak bi ñëwaat ak ñun ci message à la nation bu président de la république di Macky Sall bu mu doon amal ci ñetti fan ci weeru avril 2021 yéenekaay bi ne Macky Sall gâte les jeunes maanaam Macky mu ngi yàq ndaw yi ci ay promesse yu am solo wax na tamit ci wàllum ndox mi ndax nee na ci weeru mai bi ñu dégmal dinañ amal ñetteelu usine bu Kër Momar Sarr dinañ recruter tamit lu tollook ci 65000 ci ay ndaw ngir ñu am liggéey ci ay domaines yu bëri nas na tamit lu tolloog onze mille deux cent emplois directs ak lu ëpp trente mille ci lu jëm ci fase de bu PUDC Sud Quotidien di ko feelu ne quatre-vingts milliards dinañ ko jël ngir recruter ay ndaw yu bëri ci weeru mai lu tollook ci soixante cinq mille ci ay ndaw ci ñooñu dinan jël lu tolloog cinq mille ci ay jànglekat quatre cent cinquante milliards jël nañ ko ci giiru ñetti at dina nas tamit benn conseil présidentiel bi nga xamante ne dañ koy jagleel ndaw yi ci weer bii Las ne Macky Sall sort la calculette pour les jeunes tribune ne Macky Sall digaat na ndaw yi ay promesse yu bees tàq direct news ne chômage bi a cohésion social moo yàqal nelaw jamono ji kii di Macky sal mu ne président de la république di Macky Sall daal dina jox ay tontu yu am solo ci question yi lay source a ne Macky distributeur d'emploi maanaam Macky Sall mooy recruter di jël ay ndaw ngir ñu am liggéey di seddale waaye ku jegi rawatina kii di Bougane Gueye Dany daal dina giiru neuf ans dafa laaj maanaam réussir ci neuf ans nu muy def ba réussir ci ñetti at kese mu nekk benn laaj boo xam ne laaj bu am solo xanaa fast track Abdoul mbay moom itam daal dina ci àddu ci Walf Quotidien mu ne li ay naxaate la échec total ñu bàyyi digge Macky Sall yi dem fale ci lamb ji rawatina combat bi doxoon diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers l'observateur ne ñi ngànk wàllum bëri fii ci Sénégal dañoo mer ba futt waaw ndax combat boo xam ne saful xorom saful ñaar kay bëréewuñu dañ doon layam-layamee yéeni kaay bi ne Eumeu Lac de Guiers 2 daal di nana adopté mesure barrière bi nga xamante ne dañ ko tekk mim réew ngir xeex mbas mi maanaam distanciation physique suñu lamb ni Eumeu Sène dañ ko door blessé ko daan ko ci wàllum avertissement lakk de triomphe sans gloire waaye kii di Lac de Guiers 2 daal dina ci addu ndax nee na combat bi mooy combat bi gën a am solo ci carrière am Bira Sène ne combat bi kay du combat ay bi kay du combat leneen la waaye du combat source a ne combat bi kay du combat ñaari lutteurs yi dañoo ñëwoon stade ngir wone seen biir yu du leneen ñu jógee ci lamb ji dem ci wàllum football rawatina ligue des champions quart de finale nga xamante ne moom la a amal ni ki Real de Madrid ak ñi di waa Liverpool record ne Real Liverpool ni ki ji la kii di Zidane dina ci àddu ndax nee na dañ ko xeeboon kii di di entraîneur bu Liverpool àdduna ci moom itam di wax rek ne ndaje bi bokkul ak finalu deux 2018 bi bile ndaje beneen la ba beneen yoon